Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 6 décembre ci atum ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di fay affiche solo lit simple Papa Dia sur la journée de 19 ci atum 2021 moom Papa Dia moomee nar a dellu siwaat ginnaaw ba mu amee li nga xam ne nii moom moo di a deux ans d'absence ba dellu si waat ci diggante ki nga xam ne ni moom moo di Boy Niang 2 ki xam ne moom moo di Tapha Tine moom Boy Niang 2 répondre ki nga xam ne ni moom moo di Tapha Tine lu jëm ca wàllu xeex ba day moom Boy Niang 2 jàpp nañ ne da ko mane waaye ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang Tapha Tine c'est dimanche combat la boo xam ne ni day combat bu doy waar la waaye recherche de moyen pour and de moom moo xam ne lu ni moom xoyantaan waaye ba tey journalu sunu bi ñu nar a amal mu dib jàkkaarloo di jàmmaarloo bu tàng jër tey ji foofee ca sa job Iba Mar Diop nar a dox ci diggante ki xam ne ni moom moo di Youssou Ndour ak xam ne ni moom di Thiat Diop jàkkaarloo bu tàng jër bu ànd ak ambiance bu neex lool lépp luy am ci wàllu ambiance dana am foofee ca boobu le bis la am rek day moom di sëgg bëre waaye ba tey ci xëtum sunu lambo ki xam ne ni moom moo di Boy Niang dégg open press ba mu doon yi moom moo di ca xëtum sunu làmb fekk fa kee xam ne ni moom moo di tafatin journal baa ngi xëy di wax ci moom waaye ba tey moom Boy Niang 2 itam naka noonu Boy Niang 2 revient à domicile deux ans après waaye ba tey kee xam ne ni moom moo di Bulldozer ci atu Yaraax di 27 février ci atum 2022 le journal bi xëy bind Jackson décroché ordinateur ak xam ne ni moom moo di Bruno journal bi xëy fësal lu ni mel CNG mobile 2 suspendre cinq nii moom moo di Ronaldinho fësal par ki nga xam ne nii moom moo di Assane Ndiaye njiital Baol production moo tëgg lu ni mel waaye tekk jël ak ya affronté ki xam ne nii moom moo di Plom le 5 et le 15 janvier ci atum waaye ba tey journal bi xëy jàll di ñu xamal ne Krex ak ki nga xam ne nii moom moo Boy Baldé le 25 décembre ci atum 2021 quel adversaire pour xam ne nii moom moo jaay doole ba tey journal sunu lamb xëy jàll fi nga xam ne nii moom moo ca jalgati lamb kañu fay ak xam ne nii moom moo di mbay ñing la mu koy xamal moom moo di tafa bu ñu nangu benn yoon Ama Baldé jaar suñu kaw Boy Niang ñëwaat di jaar suñu kaw moom Tapha Tine la mu koy xamal moom moo di mukku déedéet loolu du am te lu mel noonu itam du masa am yi li nga xam ne nii moom moo di lambu jooju waaye ba tey journalu sunu lambu jàll di ñu xamal ne gala Fatick 16 19 décembre ci atum 2021 mille francs CFA la ñu teg sur la table waaye ba i combat itam yoo xam ne nii ña ngi Samb pourquoi je rien deux ans après de l'absence moom ki nga xam ne nii moom moo di Pape Dia waaye ba tey journal sunu lamb xëy di ñu xamal ne Canal ak ki nga xam ne nii moom moo di Xaban baptême de feu ce 19 décembre ci atum 2021 kay def lu ni ki nga xam ne nii moo di Fatou Balla Gaye défi à l'arène nationale yéen ñi koy seetaan lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Baol TV du nekkee bu ba topp waaye ku jooy dëpp la ko dale Thiès xombal bambayal tundangel mag seew kabak laañaar kër ba siyaare Serigne ba dellu si waat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta Jolof ñëpp actualité la am ba Baol TV ñu yendoo ak jàmm jërë ngeen jëf dig daje sadio bi ba Mar Diop fesu fes bu tàng jër diggante Youssou Ndour caatu Yoff ci kanam